aujourd'hui gis nañ bi président Macky Sall bi ko faleek léegi am na rumeur buy daaw ñu ne Macky Sall dafa bëggaat beneen mandat troisième mandat aujourd'hui est-ce que jaakaaroo ni il est temps Macky Sall rassuré waat le peuple sénégalais taxaw carrément firndeel ni wane moom kat troisième mandat nekkul ci xalam. troisième mandat yow fal nañ la deuxième mandat te tàmbaleeguloo c'est normal que grand place yi moom wax ji jax-jaxi lool dina am man troisième mandat am na ko xam ne sax daf ne man Macky Sall bu ko bu ko neexee mu am fukki mandat Diop si dama koy cité euh, responsable politique la. dafa am nag loo xam ne Sénégal dund na ko ak Ablaye Wade mooy ñaari mandat ràpp tëj moom mu dikk ne dafay ubbiwaat pour am troisième mandat ñi nga xam ni ñoom ñooy conseil constitutionnel loolu tax Ablaye Wade doonoon candidat 2012 mais waaw ubbil nañ ko mën na am li nga xam ne moom mooy troisième mandat loola buñ ko fi dundee njort nañ ne ci jamonoy Macky Sall du noonu loo xam ne luy am la ndax dañ fay def référendum 2017 ba nga xam ne référendum ba la mu wax mooy président la république bépp ba nga xam ne dangay toog ñaari mandat kese léegi Macky Sall ci boppam ne tëj naa loola tëj naa ko ba kenn dootu fi am ñetti mandat ah, ñaari mandat ci la mën a am mën nañoo dugal nag feem ña nga xam ne ñoom ñoo ko dar pour ne wuy defoon na benn mandat ci ba ñuy ubbiwaat li nga xam ne moom mooy mandat wu cinq bi ca la ñu wax ne kenn dootul am waaye mun naa am feem gëmuma ne ñu mën a jëm ci loolu àdduna dafa dafa gudd tànk te ki nga xam ne moom mooy responsable politique yenn saa yi dina toll ci situation boo xam ne Euh, dinañ ne euh, neex-neex yàq bëgg-bëgg yàq euh, dana tax yenn saa yi ñu dugal ko ci loo xam ni xëy na bu juree fitna yi ci réew mi du mujj fen parce que dañ naan war na ko mën a ne te def na ko ma yaakaar ni Sénégalais yi ñoom munuñoo nangooti président de la république bu xam ne day ñëw di am ñett waxatuma la ñeenti mandat ñaari mandat la ñu séntu ne Macky Sall moom la war a mën a def ku mu neex nag nga xalaat lu la neex waaye kii nga xam ne tàmbaleegul li ñu séntu ci moom de te gëm ci moom mooy bu defee ñaari deux mandat 2024 Macky Sall dina jox keneen. mais mais justement 2024 am na ñoo xamante ni li ñu gëm la ñu wax nee nañ 2024 day fekk Sénégal commencé di gën a naat ressource pétrole. gaz bi xaalis bi day commencer di générer est-ce que yaakaar nga ni Macky Sall dina fi mën a bàyyi xaalis boobu ak ki koy war a remplacer dem bàyyi ko d'autant plus que di nga xam ni kooku di ñëw réalisation yi Macky Sall def mën na def triple bi ak set xaala ak xaalis boobu noonu est-ce que yaakaar nga ni xaalis boobu noonu Macky Sall dina ko fi mën a bàyyi dem bàyyi ko ak ki ko war a remplacer. dayoo réew duñ ko natt ci alal hmm. dayoo réew. dañ koy natt ci li nga xam ne moom mooy jikku valeur looloo am sol Sénégal doon réew mu naat yàlla na ko yàlla defal te war nañ ko mën a séntu ndax deux mille vingt et un baril pétrole yi bu commencé ñu di ko jaay incha allahu rabbi ku ci nekk nga cee mën a gis sa bopp ci réew mi waaye lu alal di bari bari bari su fekkee jàmm taxawul xam nga. troisième mandat bu ñu ko tuddee rek fitna bu nekk mën naa génn ci li nga xam ne moom mooy réew bi parce que am na ñoo xam ne mën na leen jaral lu ne mën na leen jaral lu ne ki nga xam ne nag moom moo ko bëgg moom it bu boobaa mën nañ ne mën na ko jaral lu ne fu mu jëm ci tàkk-tàkk waaye mooy réew mi nekk ci ay jafe-jafe yoo nga xam ne alal ja tudd dootul doon loo xam ne lu am solo la ndax bala nga ne naam ne fa te kon yaakaar naa ne. li Nelson Mandela def ci wàllu yi nga xam ne moom mooy taxawaayam ba tey mu am tur ci àdduna foo ko tuddee ñu ne ah def na la mu war a def ci réewam de génn na bàyyi parce que nag nguur kenn mënu ko jeexal cim réew Léopold Sédar Senghor ba muy jox Abdou Diouf nguur gi 1981 daf ne nguur kenn du ko ŋàcc munta ne kon yaakaar naa ne Macky Sall def ñaari at ñaari mandat yu taaru pétrole bi ball ci li nga xam ne moom mooy loxoom ak gaz bi ñu exploité ko mu mañ doon une malédiction ci li nga xam ne moom mooy réew mi loolu lay gën a jiital que ni naa xëccoo ñetteelu mandat boo xam ni fitna ji muy indi ci réew mi du gis nga Algérie fi mu toll nii Bouteflika mi nga xam ne moom moo ko jiite jo seqi tànk mënatu ko ndax feebar mu am ñoo xam ne ñu ngi taxaw ne ko foog nga wut. beneen mandat encore juróomi mandat réew mi fi mu ne nii ma ngay waxuma ne ma ngay tàkk waaye ay six cent mille personnes cinq cent mille personnes un million de personnes ngay gis ñuy nekk ci mbedd mi di di manifester loolu lu ko fi jar lan moo ko fi jar kon yaakaar naa ni royukaay yooyu su fekkee dafa doon loo xam ne lu ñu bàyyi xel la Macky Sall li nga xam ne moom moo jëm ci ñetteeli mandat war naa mën a doon loo xam ne duñ ko sànc li nga xam ne moom mooy. noppam yi wala ci xelam mi ba mu bëgg cee xataraay loolu du waxi tey waxi tey mooy nan la ñu mën a fexee ba deuxième mandat bi nga xam ne moom lay tàmbale mu doon mandat boo nga xam ne dañ naan le mandat de la reconstruction de la redynamisation le mandat du dialogue parce que ça également c'est important te foofu yaakaar naa ne foofu moom mooy gis-gisam tey waaye xëccagul leneen xam